jataay waajal bis bu tedd bu am solo boo xam ne euh, bisu fàttaliku la euh, muy bisu màggalub sëriñ Abdul Ahad euh, bokk yi nga xam ne nag ñoom la sëriñ si di moom sëriñ Abdul Ahad dénk liggéey boobu te mooy lépp laaju ci jaar-jaari sëriñ Abdul Ahad ak i jikkoom ak i jàngaleem laaj na boobu nga xam ne ñoom la ko sëriñ si di dénk bu màggal gi jub si ñuy taxaw ci amal ay jataay yuñ koy fàttalikoo ci xam-xam di ko fàttalikoo ci melo yàlloo ak moom ñoo fas yéene am ak yéen jataayub fàttali ak soññe ci bis boobu di ñëw muy kuréel gi nga xam ne mooy lajnatu saxaafiya bi sëriñ Sidi Mbakke di liggéeyloo ci njiitul sëriñ Abdou Lahad Jaxate nu ànd kook bokk yi nu toogal ak bokk ya nga xam ne ñu ngi ci yeneen liggéey wutul yu wutu fa bokk yi noo ànd ak jataay bi sëriñ Abdou Lahad Bousso moom sëñ Moutalib di ko ànd ak sëriñ Abdou Lahad Bousso maam Asta moom Baye sëriñ Bousso mu sëñ Mbàkke Kanni di ànd it ak yéen jataay bi sëriñ Abdou Lahad Bousso Cerno moom sëriñ Cerno Bousso moom sëriñ Afia di ànd ak jataay bi sëriñ Abdou Lahad Jatra moom sëriñ alxaaji jatara moom bàyyi sëriñ jatara di ànd ak ba tey ci jataay bi sëriñ abdoulahat buso moom sëriñ ndaam buso di ànd ak jataay bi it sëriñ abdoulahat mbakke ali mi nga xam ne dana bokk ci ñi fi yëkkati kàddu incha allah euh, ni ñu ko bëgg a tëralee nag mooy euh, dana nu jox sëriñ abdoulahat buso moom sëriñ cerno mu gaaral liggéeyu commission boobu yi nga xam ne ñoom la sëriñ si di jébbal liggéey bi bu yàgg ba léegi ñu ci liggéey euh, yëngu yooyu ñuy yëngu ak njariñal liggéey boobu ak anam giñ koy giñ ciy yëngoo jëme ca waaye itam dana soññe ci màggal gi ngir ñu gën cee góorgóorlu gën ko bàyyi xel ndax màggal goo xam ne euh, sabab bi gis nañ ba bis ba amee ku tedd jëfandikoo ca anam goo xam ne anamuk fonkeel la goo xam ne ak euh, euh, bàyyi xel gum gum bàyyi xel ki gane si àdduna ak it yëg ne dana ko liggéeyal ci lislaam ci yoon wi liggéey boo xam ne njub gi nga xam ne moom la bëgg ci jaam yàlla yi xam-xam bi nga xam ne moom la bëgg ngir mu def ko ci nit ñi seetal dëkk bi jubal leen teg leen ci yoon gindi leen loolee mel na ni gan gii di ñëw dana ko ci jàppale jàppale gu rëy looloo taxoon ba mu ñëwee mu ne damaa am ci moom yaakaar yaakaar jooju mu amoon ci moom nag taxoon na mu fonkaat bis ba defe ca noo xam ne eh, gën naa kawe nam daan def ci yeneen bis fonkel googi nag jar na saa bu bis bi ñëwee ku di murit nga fonk ko ngir bàyyi xel lool yi waaye nag yaakaaram jooje sëriñ bi amoon ci moom itam nag sëriñ Abdul Ahad kenn ku ne xam ne ne jëmmal na ko dëggal na ko ndax lu mu tegoon la ci kanamam daan ko doxe daan wax ne waxtu wu ma namee tas yaakaar jooje yàlla bu ko sama bakkan fekkee. kon ma mënees na ko tuddee yaakaari Serigne Touba ju tasul kon bis boobu nag nga xam ne moom la nuy waajal e, muy alxames tey jii bu dellusee incha allah tollook ñaari fan ci weeru mai naka jekk muy doon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sowaal ci weeru kori naka jekk moom lay doon ci weeru wolof ci weeru hijriya ren mu tolloog ñaari fan la 2 mai nu bëgg nag balan ca àgg nu fàttaliku ko ci fàttalikoo jikko ak xam-xam ak goog ruux bala nuy àgg ci bisub bernde di ñaan bokk yépp ñu koy fàttaliku ci njàngum alxuraan kenn ku ne xamoon na diggam ak alxuraan ak ni mu ko fonke woon ak lam ca liggéey ak nam daan jàppale jàngalekati alxuraan yi ba yàlla defal ko tawféexi bi mu fi jógee ñu denc ko ci béréb bu alxuraan alxuraan wet wër wër ko ci wet gu nekk kon alxuraan jooju noo ngi koy sàkku ci turu euh, kuréel gi waaye itam ci ndigalul sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad lu ci waay man daara yi sëriñ daara yi Euh, mbooleem rek ku ci man lu ci waay man ci njàngum alxuraan mu def ko salaatu ala nabi xasaay di sëriñ Tuubaa lu ci waay man itam mu jàngal ko ko ba noppi xaddiyaalal ko ko sëriñ bi ndax mboolem lu mu daan jëf da koy delloo ci sëriñ bi te jëf delloo ci sëriñ bi daa gën a sakkan gën a wóor kon noo koy sàkku ci mbokk yépp kon nu tàmbali jataay bi rek ci sëriñ Abdou Lahad Bousso moom sëñ Thierno mu ñëwal nu ci liggéeyub na bi euh, xëy na dañoo defaat yeneen lijaan ci suuf yoo xam ne ay sous commission la dana leen tudd wax seeni activité ci lim gën a jëm waxitam loolu luy yëlla ji ak luy njariñ li su noppee nag ñu ñëw ci sëriñ Abdou Lahad Mbacké Ali moom itam mu defal nu ab nataal portrait boo xam ne dañuy jëmmalal sëriñ Abdou Lahad ci tënk ñu fàttali kooko bala nu àgg ci bis ba waaye itam nag mu wax nu solos bis bi ak solos màggal bis bu màgg lu muy jural nit rawatina bis bi nga xam ne bi mu ñëwee sëriñ bi da caa jëfandikoo jëfandiku fonkeel kon loolu mooy tënkub jataay bi noo ngi jox kon sëñ Abdou Lahad moom sëñ na mu ubbil nu ci gaaral noonu liggéeyu commission bi kon sëñ Abdou Lahad bismillah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñuy déglu it ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel di am mbegte bu baax a baax ci jataay bii nga xam ne ñu ngi koy def mu aju ci waajal màggalu Cheikh Abdoul Ahad ñëwee euh, bi nag ñu ngi ciy jiital sëriñ Sidi Mbacké mu Cheikh Abdoul Ahad euh, di ko teg ci loxoom nuyoo bi it jàll ci kilifaam moom di Cheikh mun Mountakha di ko ñaanal sum borom mu yàggal ko fi te wéral ko Euh, bu ni si ab laxat ka daanale léegi tënk na jataay bi li ko waral lim na it kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew am naa du aju ñu ci jaaraat su ko defee li tax a jóg jataay bi wax na ko mooy waajtaayu màggal gi nga xam ne mooy am ñaar fan ak ñett ci weeru sawaal di màggalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di bis bu rëy boo xam ne sëriñ Touba ci boppam moo ko màggaloon ci bi sëriñ bi ganee àddina di Cheikh Abdoul Ahad wax ne lu ñuy daa def ci ñi ñii fi feeñ moom nañ ko ful digal ay mag ñu dem ñaanal ko wax de am na ci moom yaakaar loolu nag euh, jàpp naa ne kon képp koo xam ne taalibe Serigne Touba nga te gis ni Cheikh Abdoul Ahad ni mu jëmmale yaakaari Serigne Touba jooju bis bi su ñëwee war nga ko bàyyi xel rawatina nga delloo njukkal Cheikh Abdoul Ahad ndax di ko waykat bi doon waxee Cheikh Abdoul Ahad kum jamonanteel jëfal na la soo ko yëgee soo ko yëgul jëfal na la euh, woykatu wolof bi it di sëñ Mortala Diagne ni mu ko doon waxee ca xaama balsa si la feeñ ca njaareem nee nañ keroog la sëñ bu wax des ko yéem nee nañ keroog diine ji ak lislaam bi mbég nañu mbég mu rëy ci gan gi ba bis ba delsee mu daat koy berndeel daan new turam abdul ahad moo barkeel am naa yaakaar ci abdul ahad mi le kon jooja yaakaar seere naa ko muy jëfam yi le loolu nag ñi ko mën a seede bari na lool lool lool ndax si abdul ahad Euh, képp koo xam ne gane nga àddina ci année soixante quinze jëm quatre vingt rek jariñu nga ci jëfam kon nag bépp génération boo xam ne loolu fekk nga war nga war nga koo delloo njukkal bu baax waaye génération bi jiitu nga xam ne ñoom it fekk na am na lu fi fekkoon mu ñëw seetal ko fàkk loolu ba mu set loolu it war nga war nga koo delloo njukkal rawatina nag euh, ñi nga xam ne nag seeni waajur Cheikh Abdou Lahad daf leen a marqué lool jëflante ak ñoom jëflante yu rafet rafet comme ni mu ko defee ak ñëpp waaye ñoo ñooñu tax na ñuy delloo njukkal Cheikh Abdoul Ahad ba tudde Cheikh Abdoul Ahad doom te ñu ay kilifa yu bari yoo xam ne mënees na cee ràññu ci biir loolu nag looloo tax sëriñ Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad biñ demee ba année fekk magal gi tàmbali woon na bu yàgg yaakaar naa ren mooy 35e édition ndax Cheikh Abdoul Ahad mi ngi fi jógee kon magal gi bi ñu ko tàmbalee yàgg na waaye 2008 wala 2009 ci la sos commission lu jiitu loolu nag daanañ waajal màggal gi ci ay jataayu diine ak ay jataayu xam-xam waaye mu dem ba gis ne ku mel ne Cheikh Abdou Lahad ak ni marqué jamono ak ni mu amee solo ni dundam amee solo ak ni mu bëree njariñ warees na gën a mën a jariñu ci moom tax nag mu woo ay bokk yoo xam ne ay doomi soxna lañ di ay doomi kilifa euh, dajale leen ne leen kat dama bëgg ngeen def ab liggéey ci Cheikh Abdou Lahad ngir fexe ba nit ñi gën a jariñu ci ak dundam ci wàllu xam-xam ak ci wàllu dunduk àddina ak ci wàllu xelam mu rafet ma ak ci wàllu mën a yare ba bu bis bi jubee na ngeen fexe ba loolu moom na riir ci ci télévision yi ak rajo yi ak site internet yi loolu jàpp naa ne moo waral ci at moomu sëriñ bi e, sos commission boobu commission bi nag e, muy commission communication muy lañ lañ natu saxaafa maanaa commission boo xam ne dafay yëngu ci wàllu xam-xam ngir dundal xam-xam ci waajtaayu màggalu Cheikh Abdoul euh, ki ko jiite mooy sëñ Abdoul Ahad Jaxate mu sëñ Cheikh Jaxate Tindóodi biñ sosee commission bi nag ñàkkul ay borom xam-xam yu bari ñu ngi ci ñàkkul ñu daje xool tëralin wi tëralin boobu nag moo jul résultat bi ngeen di gis moo tax ñu ñu def ko lu mat euh, euh, juróomi sous commission yoo xam ne yoo xam ne mi ngi ci bi ci njëkk muy lañ lajnatul lañ lajnatu saxaafa la mais ñu sos benn lajnatul ilmiya boo xam ne ñooy yor wàllu xalaat yi si euh, doxalinu xam-xam yi yi ci biir muy proposé mawduwaat yi ak yan thème lañ mën a jariñoo ak yan discours Sëñ Abdou Lahad la ñu war a jël ngir jàngat ko ak yu demee noonu euh, loolu ki ko jiite mooy Sëñ Abdou Lahad bu so mu Sëñ Ndaam mu Sëñ Ndaam Mbar Sëñ Abdou Lahad bu so mu Sëñ Ndaam Mbar moo ko jiite ànd ci ak euh, ay kilifa yu bëree bëri xëy na mënuñoo lim ñëpp waaye mën nañ ci lim docteur Sëñ Abdou Lahad euh, Ali mi toog nga xam mooy arcem ak docteur Sëñ Abdou Lahad Lo Sëñ euh, Abdou Lahad Bousso Sëñ Abdou Lahad Mahmoud Ñang Sëñ Xaadi Jaxate Sëñ Abdou Lahad Maram ak yeneen Abdou Lahad yoo xam ne ñu ngi ci ñu ñu ñu bëree bëree lañ na boobu it xam ngeen ne lépp loo xam ne mooy waxtaan yi ngeen di dégg ci télévision yi ak rajo yi ak site internet yi ak euh, yu ni demee yooyu yëpp ñoo koy ñoo koy saytu ngir di wut ay nit ñu koy def muy loo xam ne yaakaar naa bi weeru koro wi teroo ba léegi ñu ngi koy dund bu baax a baax maamaat beneen lañ na boo xam ne lañ natul ihlaamiya muy commission communication suu commission communication boo xam ne euh, lii yëngutoo mooy coordonné mboolem site internet yi ak télévision yi ak rajo yi euh, ci lépp loo xam ne warees na koo jël ñu fexe ba jël ko monte ko saytu ko ngir fas yéene mu jàll fexe ba daal ñu dund Cheikh Abdou Lahad ci bépp jumtuwaayu communication boo xam ne am na ci réew mi loolu it jàpp naa ne euh, ñu ngi koy dund ci site yi ak rajo yi ak euh, télévision yi ak yu demee noonu boobu ki ko jiite mooy Abdou Lahad Bousso Thierno ànd ci ak euh, sëriñ Abdou Lahad Ka sëriñ Abdou Lahad Maram sëriñ Abdou Lahad Ndiaye waaw loolu tamit commission la boo xam ne liggéey bi muy def liggéey bu rëy rëy la boo xam ne am na solo mu am beneen sous commission ñetteelu commission bi muy al lajnatu tanzim wal wal maharat maanaam commission organisation ak boo xam ne euh, euh, ba pare ñoom ñooy organiser wàlle exposition bu mag bi nga xam ne euh, yeneen koy gis ci buntu kër Cheikh Abdou Lahad ci magal gi muy lu rëy rëy loo xam ne lafa nekk ci ay gëstu ak i njariñ ak xekma yoo xam ne Cheikh Abdou Lahad def na ko muy liggéey bu rëy boo xam ne teg nañ ko ci xam-xam ak xel mu yaatoo yaatu boobu nag ki ko jiite mooy Sëñ Abdou bu Bousso mu sunu bàyyi Sëñ mu Moutalib ak sëñ Abdou Lahad Jatara moom sëriñ Alhaji Fadilu Jatara moom bay sëñ Jatara sëriñ Moustapha Jaxate sëñ Abdou Lahad Alhaji Seex sëñ Abdoulahi Diop sëñ Abdou Lahad Ndiaye ak sëñ Abdou Ka ñu nekk ci commission boobu nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu organisation waaye tamit ñooy ñooy ñooy ñooy xalaat mahrat bi ñooy def thèmes yi ñoo koy organiser ñoo koy ñoo koy ñoo koy teg ba nit ñi di ci mën a jariñoo noonu. moom beneen commission boo xam ne lañ natul maaliya la mooy ñoom ñooy saytu lépp loo xam ne mooy jumtuwaayu alal yi nga xam ne dañ koy séddale ci commission yi talab yi ñëw muy muy muy muy ñu koy ñu koy nos ba fe kenn ku nekk la nga war a jot nga jot xam ngeen ne commission bi at mu jot sëriñ Seydi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad dana jëy jël jumtuwaay yi ñu war a liggéeyee muy ab somme bu am solo teg seen loxo ngir bëgg euh, taalibe yi ak jullit yëpp mën a jariñu ci Cheikh Abdoul Ahad loolu nag am na commission bu ñu ko dénk sëñ Abdou Lahad Bousso Muxtaar moo ko jiite sëñ Abdou Lahad Jaxate mi ngi ci sëñ Abdou Lahad Cerno sëñ Abdou Lahad Jatara ni ko doon tamit am na ñoo xam ne ñoom ñooy mooy commission boo xam ne tamit bokk na ci nga xam ne lépp luy archive xam ngeen ne biñ tàmbalee waajal màggalu sëñ Abdou Lahad ak léegi ñu am ci ay témoignages kenn xamul nu mu toll te ay kilifa yoo xam ne jamononte woon nañu ak sëñ Abdou Lahad am na ci ñu bëri ñoo xam ne bàyyikoo nañ fi te ñooña xam ngeen ne kenn mënatut am seen image wala seen son kon loolu jaadu na ñu garder loolu bu baax a baax a baax ngir képp koo xam ne ab jullit nga wala nga ab taalibe boo xam ne bëgg ngaa jariñu ci kilifa yooyu nga mën koo jariñoo saa su loolu nag ñu jël commission boobu muy ba am solo dénk ko Sëñ Abdou Lahad bu soob maam asta ngir mu mu saytu ko dajale lépp luy archive yi ñu am moo xam ci wax la wala ci son wala ci bind ak yu demee noonu gën ko organiser war rangale ko ba nga xam ne tey buñ nee soxla nañ rek euh, loo xam ne Euh, bay sëriñ Bousso bi buso mu sëriñ Mbàkke Kanni waxoon na ko si Abdou Lahad dañ koy daal di mën a génne léegi moom moo yor loolu <coughs> ak commission bi nga xam ne ñoo yor wàllu lañ tul xaariji maanaam alaqa xaarijee boobu maanaam ñi nga xam ne ñooy dox diggante mbooloo yi wala ak nit ñi nga xam ne bokkuñ ci biir commission bi tañu tañ am soxla ci ñoom loolu Sëriñ Abdou Lahad ma sa moo ko yor kon suñ dee xool ci juróomi bànqaas yooyu la commission bi la commission culturelle bi euh, tënku ci loolu loolu nag moo tax ñu mën a def liggéey bu bu bu am solo bi nga xam ne ñi ngi koy def ci at mu jot yaakaar naa ne euh, def na ay résultats yu ama am solo kon loolu su ko defee programme yi nga xam ne ñi ngi koy def gis ngeen ko bu màggal jotee bu ñu lancé jotaay bi bokk na ci da ngay gis ne danañ teg ay programme yu yu yu yu yaatu yoo xam ne dañu bëgg képp ko xam ne yaa ngi ci weeru weeru sawaal rek balaa la 23 nga dund si Abdou Lahad mooy témoignage yi ngeen di dégg ci rajo yi ak site internet yi ak télévision yi niki noonu euh, danañu def dem ci rajo yi def ay waxtaan ay ay ay ay waxtaan yoo xam ne ci dundu Cheikh Abdou Lahad la ñuy waxtaan at mu jot ñu génne benn thème boo xam ne day am comme niñ ko niñ ni ni niñ amee thème ren thème bu am solo boo xam ne Sëñ euh, Abdou Lahad Ali buy ñëw xam naa dana ci ñëwaale wala Sëñ Abdou Lahad Jaxat ka dana ko fàttali léegi niki doon tamit danañ am jataay boo xam ne jàngat discours lay doon nga xam ne loolu tamit yaakaar naa ci phénomène la boo xam ne commission bi moo ko génnee jël discours Cheikh Abdou Lahad euh, boo xam ne day day dëppoo ak jamono jox ko benn borom xam-xam mu jàngat ko saytu ko génn ca mbóot yi ak jariñ yi nga xam ne Cheikh Abdou Lahad wax na ko ci muy lu am solo loo xam ne nit ñëpp a ngi koy apprécier loolu dana am ci bis magal gi ci ginnaaw tibis muy lu am solo bokk na ci activités yi ñuy def tamit mooy exposition bi nga xam ne bu ñu ne ginnaaw suba la màggal lañ koy lañ koy ubbi muy la 31 wala la première nga xam ne képp koo xam ne ab gëstukat nga wala ngay ab jàngkat Euh, ubbil nañ la porte ngir nga mën a ñëw gëstu ci Cheikh Abdoulaye rawatina xikma yow yi nga xam ne doon na ko wax nga xam ne ku ne mën na cee jariñu moo xam julli la moo xam doo julli ndax dundug nit ki lay yéwénal ak ak fii day yéwénal dundug nit ki ci ci yomal am tamit euh, ni ki doon tamit am na taabal rond boo xam ne dañ koy def ren jii mu war a doon samedi incha allah euh, gaaw le 27 gaaw le 27 ngir ki koy déglu ren nag moom ñu def ci acte bu am solo boo xam ne dañ koo jagleel njabootuk sëriñ Amsatu Jaxate sëñ Amsatu Jaxate kenn ku nekk xam na ko digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad ci ci ci di nijaayam waaye di bokkam di léppam euh, ñu amoon jaxasoo lool rawatina njaboot gi nga xam ne ñoo fekk ñu ngi siyaare bu baax sëriñ Muntaxa Jaxate mi nga xam ne mooy ab xalifaam te di ko ñaanal waaye di nuyu bu baax sëñ ab Ahad Jaxate mi nga xam ne mooy suñ bunt nag ci kër sa Amsatu Jaxate waaye doon nag tamit benn ponk tamit ci commission bi nga xam ne da ciy jàpp bu jàpp yu am solo loolu mi ngi am gaaw le 27 incha allah. ci kër sëriñ Abdoulahi Jaxate lañ lañ koy defee euh, loolu daal jàpp naa ne ci tënk sëriñ Abdou Lahad mooy liggéeyu commission culturelle bi nga xam ne sëriñ Seydi Mbàkke sos na ko ni mu ko waxee léegi ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax may nañu opportunité boo xam ne ñun tamit suñu waajur yi eh, li ñuy def leer nañu leer nañu ne ñu ngi ciy teg seen bët di ci bëgg loolu rek fi ne lu am solo loo xam ne ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom mu dolli ko kàttan dolli ko wér abdul ahad yi nga xam ne ay doomi soxna lañ wala ñu ay borom yi xam-xam te nekk ci dëkk bi yaakaar naa ne ñun lu tuuti lañ ci ñi nga xam ne war nañoo mën a ñëw pour adhérer ci émission bi kon ñooñu it ñu ngi leen di soññ bu baax euh, suñu borom mu defal ñu tawfeex euh, barakati xaadim rasul euh, di fàttali tamit képp koo xam ne yor nga daaray alquran wala nga wala nga doon ab jàngkatu xasida nga dimbale lañu bu baax jàpp lañu ci waajal màggal gi ci alquran ak xasida ndax kenn ku nekk xamoon na diggante si Abdou Lahad ak alquran kenn ku nekk xamoon na diggante ak xasida kon ak lim leen jariñ ak nim leen daa taxawoo rawatina daara yi kaamil yi nga ne moom daanaka moo ko gën a dëgëral Tuubaa ko fi wuutu ñëpp jëmmal ko waaye si Abdou yaakaar naa ni mu jëmmale daara yi kaamil yi ci Touba ak njaareem ak fu mën a doon tax na kon bu gisam jub see ñu war koo delloo njukkal bu baax waaye rawatina daa daara yi alquran yi ni leen daa dimbalee ak ñi nga xam ne taxawu na ak ni mu daa delloo njukkal xale bu bind alquran ñëw jox ko kaamil ni mu la daa defalee teraanga ngir soññ la kon ñooñ ñëpp am nañ aw sas ci fexe ba kenn ku nekk jàng ko alquran jàngal ko xasida ngir ñaanal ko suñu borom taas ñu ci barkeem kon si Abdou Lahad ñu ngi yemale kàddu yi foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin amin wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk yi ñuy seetaan ak mbokk yi ñuy diglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Ka jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Bousso ñu ngi nuyu mbooleem ñu toog ci jataay bi ci waa commission bi ñëpp euh, sëriñ Abdou Lahad mooy ñetteelu xalifa sëriñ Touba mi ngi feeñ àdduna 1914 tolloog ñaar fan ñaar fan ak ñett ci weeru Korité muy bis boo xam bis bu rëy la woon ci sëriñ bi dañuy wax ne mboolem wàccaay yi nga xam ne moom lañ koy moom la waajalee kuy doog feeñ sëriñ bi da ko renforcer da ko gën a yokk da ko gën a fonk da ko tàmbalee dañuy wax sax tàmbulee ci saranga ci bisu tudd ba mbooloo mu fa ñëw ak lam leen wax ak euh, digal gi mu leen digal ñoom ñëpp ñu ñaanal ko ak wax gi mu wax ne daa am ñoom yaakaar loolu lépp daa feeñ ci kanamam feeñ ci ci ci ci ci ci li nekk ci kanam sëñ moomu ay nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate sëñ Alsaan Jaxate ginnaaw bi ko sëriñ bi daalalee bare ñoo ko jàngal alxuraan waaye xam nañ ni ab kaamilam laatumu ko jébbal sëriñ bi sëriñ bi bàyyi koo na fi kaamilam boobu dañuy wax ne sëñ Moodu Mustafaa la ko mujj jox kon loolu mooy tàmbaleem jëflante ak njabootu Serigne Touba ginnaaw bi Serigne bu jógee hmm. Serigne Modou Moustapha mu def ko kilifa jébbalu ci moom comme du wax ne moom way juróom dafay teel a jóge te mu xam ni njariñu tayam ak ëllëgam mi ngi ci liggéeyal way juróom mu def ay magam comme ay way juróom taxawaayam digganteem ak Serigne Modou Moustapha euh, euh, ñu bari dañ koy nattali joxoon ko léppam. sëñ Modou Moussa tamit féete ko fi waajur di féete doom féete ko fi mag féete rakk taxaw am njàngam moo xam ci Tindodi la wala fii ci Touba fi ñuy Daaru Naar wala Daaru Rahman ci Daaru Xudos tey ka Abibu naka noonu taxawaay boobu la amoon ci Serigne fallu mi nga xam ne mooy ñaareelu xalifaam eh, ak ci Serigne Mahamadul Basir Serigne Mahamadul Bachir eh, nga xam ne magam la woon moom it ku nekk ci ñoom am na cër bu mu la joxoon am na fu mu la féete woon am na lu mu la jàppee woon di xool ci yow Serigne Touba parce que yéen laa liggéeyal comme bi fi Serigne Touba nekkoon ni mu lay liggéeyalee am ay taxawaay yu am solo yoo xam doon na ko taxawee ci seen jamono wax nañ sëñ Fallou sëñ sëñ Modou Moustapha waaye sëñ tamit kon xam na ni bari na lu mu ko doon doxloo bare na lu mu ko doon lijjanti loo bari na fu mu ko féete woon foo xam ni déggu woon a moom lool ndax da koo defoon kilifa def ko ab sëriñ mi ngi doon xalifa nag ginnaaw bi fi Serigne Fallou jógee 1969 la toogee jataayu Sëriñ Tuubaa bi euh, daa di wax lim bëgg wax fam jëm ak nam ko bëggee mooy lu am solo loo xam ni euh, dund Sëriñ Abdul Ahad lépp ay bind la ak jàngale la waaye foofu mooy bind bi njëkk mooy nit ku nekk danga war a xam li nga bëgg da war a xam da war a am aw yoon woo koy jaar pour ak am ci li nga bëgg tamit loolu teel naa wax ne moom daa gont ci bëgg am li ñu xëy am kon kooku amul jot Euh, mu taxaw taxawaay bu am solo ci euh, ci yoonu murit wi mooy fésal Sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax nëbb boppam ci taxawu dëkkam bi lool satal ko mu set wecc waaye tamit euh, ràng ko mboolem lu ab dëkk di di soxla woo moo xam ci wàllu jaamu yàlla yi jumaa ji gis nañ yokk bi mu ko yokk ak ni mu ko yaatalee waaye taxawu alquran daare kaamil gis nañ ko ak lim doon liggéey ci alquran moo xam di ko bindulu di ko fa denc moo xam di teral ñi nga xam ñooy ñooñ alquran waaye naka noonu jàngukaay yi ci des gis nañ université bi nga xam tey moom la Sëñ Muntaxa àggale ko yàlla eh, yokk ak wéram ci guddal afanam moom àggale mbébétam yëpp moo fi moo sàkk barab bi moo fi bàyyi moo ko ba defoon ci lu bari sax loolu taxawaay la boo xam ne bu am solo waaye tamit noonu la taxawoo dëkk bi ci yaatal ko noonu la taxawoo dëkk bi ci indi fi ndox mu doy indi fi courant yaatal euh, tëli yi defar fi yeneen mel ni barab yi armel yu bees yeek ak yeneen yu baree bari lépp lu ab dëkk di def daal mu def ko ci ci dëkk bi waaye jàngal murid yi tamit euh, naka lañ war a amee fulla naka lañ war a jubee naka lañ war fonk seen bopp naka la ñu war a liggéey loolu dañ ko daa dégg ci ay discours saa su nekk nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey ca bañ a tooñ loolu daanañ ko dégg saa saa bu mosaa wax daana ko wax waaye taxaw gum taxaw tamit euh, taalibe yi euh, comme ni nit di taxawoo ak njabootam wala nu ko raw sax taxawoo na taalibe yi noo xam ne xamuñu xamu xamee si ko woon sax ci ci nit ak njabootam loolu mi ngi tàmbalee ci bu liggéey jotee ruuj danaa woote jël rajo bi woo ne nañ dem tàmbali ji liggéey bi nam ruuji bi sàngam nañ tàmbali ji ruuj bi buñ bàyyee ba noppi danaa soññee ci insisté ci mit ne nit ñi nañ génn asaka ku bay par da génn asaka eh, jàngal nit ñi naka la ñuy sant yàlla jàngal nit ñi eh, naka la ñuy naka la naka la ñuy organiser woo nag jàngal nit ñi ak yeneen a yeneen yoo xam ni jàngal na ko jàngal nañ ko jàngal na ko murid yi waaye jàngal ko mboolem Sénégal yi jàngal ko mboolem jullit ñi ci doxinu àdduna yooyu xëy na ci kanam léegi nag loolu nga xam ni mooy mooy ab taxawaayam ak eh, jeexit yi fi bàyyi ci tabaxaat yoon wi tabaxaat ak murit ci boppam ak murit bu njëkk ab murit eh, dañ daa wax ne eh, lu jigéen ñàkk-ñàkk solo lu jigéen doye doye di mën a jurub murit loolu kon mu ak murit àggoon na ci doyo dal ko foo xam ni eh, fa la doyo dañ ko daal tëkkale ak mbërum làmb mbërum làmb ci wolof mooy ki ñëkk gën a ñàkk solo buñ demee bu di ko tëkkalee ak murit mooy ne kon nit ñi fiñ te tegoon am murit doy na waar waaye suñu Abdul Ahad moo yëkkatiwaat maanawiyaat murit ab taalibe génn ci moom eh, ñàkk complex génn ci ah, def ci moom maanaam mu am autosuffisance maanaam mën a mën a mën a mën a yem ci boppam mën a mën a doyloo ay jëfam mën a doyloo ay pexeem mën a euh, ay mbiram euh, tabaxaat am murid ci boppam euh, ba yaakaar naa ñu bari seetlu nañ ne toll nañ ay jamono yoo xam ni boo bëggee wane ne ab Sénégalais nga dëggantaan faw nga nuru am murit bu koy wane ne ab Sénégalais dëggantaan faa ngu wane ab murit ca loolu jëfi Sëñ Abdou Lahad la kon Sëñ Abdou Lahad moomu nga xam ni moo doonoon yaakaar yi way juróom ba ca réaliser li mu réaliser moom la ñuy bëgg a màggal ca loolu kilifa yi ñu ngi ko inspiré woo ci màggal gi nga xam ni way juróom moo ko njëkk a màggal comme ni jiitoo léegi bu fekkee gan gi daa gane àdduna ñu waajalee ko ci façon boo xam ni ci bernde moo tax màggal gi berne da cee baax lool berne da cee bokk euh, ca loolu it dañ koy jël war sëñ Abdou Lahad bu masa berndeel gan damay wax ne man ba léegi la ma daa gis jamono sëñ Abdou Lahad gisatuma ko gan ñëw nga berndeel ko toppatoo ko ci ay xéewal ci façon boo xam ni ñett nit day am ñu tegal leen ñeenti booli ñeenti booli yoo xam ne bool bu nekk am xar da ca nekk ci ñett nit euh, ci ci ci xam ñoom dong ñoo ko moom ganale gan berndeel ko ci yën koy berndeel ba noppi buy dem nit topp ci ginnaaw ubbi maal ba dugal fa am xar walla keesu keesu pomme wala orange eh, mu yóbbaale loolu yaakaar naa façon berndeel na boo xam ni eh, man yaakaar naa raar na xam naa xëy na mi ngi am bate tey waaye man gisatu ma kon màggal gi bernde da ciy bokk waaye bernde gi tamit sëriñ bi moo ko moo ci jiitu kon dañ ko ci jéem a rek ci ci ci bernde bi waaye tamit ñaan dafa bokk ci màggal gi ndax sëriñ bi tamit ci lañ ko ci lañ ko jëlee moom moo njëkk waxee ne nañ ma ñaanalal eh, gan gi ndax am naa ci moom yaakaar ñaan yooyu day continuer ba tey moo tax màggal gi dañuy dañuy dañuy dañuy jàng alxuraan bu baax a baax a baax jàng xasiday azkaar yi mboolem luy ñaan dañ koy def bu baax a baax ngir suñu borom fayal ñu suñu Abdul Ahad moomu màggal dafa am solo lool. ñun ñu dëkk fii moom xam nañ lan mooy am solo màggal ndax màggal mooy <coughs> occasion bi nga xam ni dana yomb lool nga dox ci mbokk jamono ni mu tënkoo nii nga xam ni kenn amatul jot fa mel ni sax waxtu yu daa manqué daa amatul daa amatul euh, xiima bu amoon dangay xëy suba ba jant bi soo nga xeeb euh, waxtu yi fi jaar ngir munta matale sa yitte noonu la jamono bindoo léegi léegi nag xeeti màggal yi day tax nit ki mën a dox bokk ci côté boobu bu baax a baax waaye màggal tamit dafa am solo ci ne day tax nga am ak jokkoo wala ak jonjo ak gis ci màggal rek nga mën a gisee xeeti nit ñoo xam ni boo demoon seen kër amaan doo leen gis te mënuloo leen andi sa kër ci màggal doo nga mën a ak ñoom te loolu muy santaane suñu borom ci jokk bokk la gu mel ni màggalu suñu Abdou laxaat ci ngay tàmbali ñu ne dugg nañ ci weeru korite yi rajo boo taal télévision yu bari nga tàmm tàmbali di di di diglu waxe suñu Abdou Lahad di jàngaat di jaruñuwaat diglu ay mu fàttali la loo xam ni eh, benn ci ñoom rek jamono yi nga xam ne dañ naan buur day génn benn yoon ci at mi bu génn wax benn kàddu demaat dama ne xekkami suñu Abdou Lahad yi bu fekkoon noonu lay demee at mu jot dañuy day génn wax benn xekma demaat ba déwén loolu rek jar na màggal rawatina nag mm, waarkàlla liggéey commission bi am na ci lool fexe nañ ba rajo yi ak télévision yi ak site internet yi ak yeneen euh, wasaa'id yi ci des fexe nañ ba suñu Abdou Lahad saf ca sàpp ay waxam yoo xam ne ñëpp koy jariñoo ay dénkaaneem nabbaat gu muy nabbaat taalibe yi soññat gu leen soññ xamal gum mu leen xamalaat sëriñ Tuuba ak ni ñu waree ni ñu war a mel ci am fulla ak fayda ak jub ak dëggu ak ak fonk sa bopp eh, waaye tamit yemut foofu di xamal ñaan ñi nga xam tamit ñoo dut ay ay murit liñ sax ak murit yi wax bu am solo bi mu waxoon ci xam ni ñi setantal cay jàngat wax boobu oyofut ci ñoom mooy fi muy wax diggante murit ak kurut am murit seen relation na la demee wax ne murit bi amut benn problème ak kurut am murit amuñu benn problème moom daal li koy teel mooy Serigne Touba bu fekkee xam na ni waa ji nga xam du am murit ni yàlla def Serigne Touba naqariwu ko kooku du ko xàmmee ak mbokku muritam loolu li muy tekki mooy murit amut ak problème kenn amut kenn ku ne da ko maanaam dafa jàppee ñëpp ay mbokk seq ak ñoom jàmm seq ak ñoom euh, teraanga. magoog léegi nag mu des contraire bi. ki nga xam ne nag moom daa ñëw tooñ mooy ki nga xam ni moom yàlla njëkk tooñ ndax euh, weddi na dogalu yàlla ndax li yàlla defal Sëriñ Tuuba du ko neexut kooku it li mu ci digga leer na duñ ci xeexante duñ ci xolonte waaye dañ ko dul boole ci suñu mbir duñ ko suñ dara duñ ko sóoraale ci suñ dara dañ koy naan ñukk fee ne yàq bu forox te loolu lu am solo la ki nga xam ni mën ngaa jëflanteeg moom ci àdduna nga jëflanteeg moom ki nga xam ne mënoo jëflanteeg moom ci àdduna it li nga ko def da ko bañ a boole sa dara rek loolu it sëñ ab Lahad moo ko jàngal murid yi ba nga xam ni fi mu ne ki dut am murid tamit xam na ni murid yi ni ñuy jëflanteeg moom ñooy mooy nii moo tax léeg-léeg sax gis koo xam ne da ci potoxluwaale bëgg a kii waaye eh, nit ñi dañ xam de day gis koo xam ne day ñëw eh, maanaam di nax naxaate waaye naxaate yooyu ñun teeluñu li ñuy teel rek mooy yow daal sa position bu leeree ni suñ sëñ suñu borom nu mu def sëñ Tuuba naqariwu la wala donte daa naqari nga di ko nëbb waaye nga ñu naqariwu la bu waaye ñun dañ la ubbil suñ bopp def la nañ suñ bopp léegi nag bis boo manifesté nag ne ne ni nii sëñ suñ borom def suñ sëñ Tuuba naqari na la bu boobaa yaa tooñ sa bopp ndax li nga xam moom la moom la eh, sharia jàngal moom la ñu ci la ñu yar mooy ab nit ab jullit daa war a nangu yàlla yow mi nanguwu nanguwu dogalu yàlla nag lépp lu la naqari lépp lu la dal bu ko bu ko jàmbat fenn yaa ko teg sa bopp boobaa ñu ni ñu jëfante yow mooy bañ bañ laa sóoraale suñ dara rek jàppee la ko fi nekkut jàppee la ko fi nekkut yu demee noonu nga xam ni eh, sëriñ bi da koy jàngal da koy xamal ki nga xam ne lu ab taalibe mu jariñoo ko lool am na ci ñoo xam ni bu fekkoon loolu rek la sëñ Abdou Lahad mos a wax euh, mu yem fa doon leen sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk euh, ab cadeau doon leen sëkk sëkk euh, ak jariñu ci sëñ ndax moo leen xàllal yoon wi moo tax ñu xam ni ñuy dundee ak ak murid yi kon kooku moo sëñ Abdou kon màggal gi loolu amee solo nit ki nga xam ni fekk wu jamono sëñ Abdou Lahad wala fekk woon na ko fu mu tourné di dégg ay waxam di dégg ñuy nettali ci moom comme ni ko waa commission defee ay nit di di di di nettali seen jëflante ak Sëñ Abdul Ahad Sëñ nan la relation yim amoon digganteem ak ay bokkam digganteem ak taalibe yi digganteem ak waa dëkk bi ci tabe gum tabe woon ak dimbale gum leen doon dimbale taxaw gum leen doon taxaw xeebu dara dara dara dara ci ku bokk ci ci ci yoon wi ak sax ku bokk ci yoon wi den nit koo xam ni dafa fees dell ak i njariñ ci amul dara ci lor loolu rek bu fekkoon loolu rek lañuy fàttaliku ci ci jamono màggal gi màggal am na solo waaye tamit dafa am leneen lu amaa solo ci màggal mooy nit ki day yëg nafsiyan nekkat am na bor bu mu amoon boo xam ni fay na ko tey mu fekkee da nga am koo xam ni am na àq ci yow am la féete fu wóor foo xam ne am na lu la daa jariñ am na am na daal bor boobu yëg ne amel nga ko mu am bis bu tool nii nga xam ne fonk ko lool yi mu ko fonkee nii dem nga nga cay dem yow da nga ko yëgaale si bopp ne yow mii kat tey wàcce ko am na yan bu diis boo boo boo yanu woon boo xam ni yebbi yebbi ko nga ko tey ndax doon nga wër comme ni ñu ko daa waxee bu njëkk rek as gor bu njëkk boo ko masaa defal teraanga ci loolu si ñëpp laat laa ko déggee boo ko masaa defal teraanga day ñaan yàlla fekkee loo ko sa bis ba mën laa fay loolu kon màggal Sëñ Abdou Lahad gi yu mel noonu tamit moom it day day jëriñ loolu bu baax a baax waaye màggal Sëñ Abdou Lahad màggal màggal ci boppam rek rawatina màggal Sëñ Abdou Lahad dafa bari yeneen njariñ yoo xam ni ma jamono ba njëriñu économique yi am na ci ñoo xam ni eh, yarkati ginaar yeeg jaaykati boisson yi demee noonu tubaarkaat dañ ci gis seen bopp bu baax a baax kon daal màggal gi wala màggal ci waxam lu am njëriñ la rawatina màggal Sëñ Abdou Lahad nga xam ni ñoo dañ cee yaakaar euh, euh, euh, fayuk suñ borom dañ cee yaakaar ngërëmu Sëriñ Tuuba ngir ne moom la ñu toppandoo moom la ñu roy ci moom moo njëkk a màggal Sëriñ Abdu ci façon bi nga xam ne seet ñu wax ko ci tàmbalee ci saranga bis bisu tudd baag yëpp ak wax jëm ci waxoon am jaakar ci accord ci ñun ñu fekkee meññit moomu meññit moomu ñun ñoo ko fekkee yaakaar ñu amoon ci amoon ci moom ñun ñoo fekkee meññit mi ndax bu fekkee yow da ngaa dëkk Touba gis ne yow am kaaraange boo xam ni si Abdou Lahad moo la ko may Sénégal dañ naan dëkkub laayeg la normalement euh, la am ndakaaru kon ma war a am Touba ci koñ boo tur gis euh, kuy jaay carte kat bu fa nekk boo xam ni weccet boo yor mu yóbbu ko foo tur gis kuy jaay sàngara foo tur ne gis kuy jaay cigarette foo tur ne gis kuy fecc ko yooyu nga xam nii dafa mën a fab bi doomu aadama yow ñu raxasal ab dëkk ñu ñu ñu sàmmal aaral ab dëkk ba loolu lépp ak siwu fa nekku fa nga xam yow xamoo ko sa far li nga xamul moom mënu laa mënoo mënoo caa dem far loolu yaakaar naa ñun ñoom ñun ñii fekke loolu comme ni ko suñu Abdou Lahad euh, bu sa waxee léegi ñi nga xam ne ñoo judd ay soixante-dix ba quatre ñoo ñu nga xam ne dañoo dañoo judd bi ñuy màgg tasanteeg dëkk bi set wicc ñooñu moom xam nañ lan kon mooy Sëñ Abdou Lahad waaye ñu ko ñu jiitu lu jiitu ñu juddu lu jiitu loolu tamit nga xam ne Sëñ Abdou Lahad di di ñëw fekk na ñu doon ay mukallaf ba tàmbalee doon ay waxambaane gis la xewoon rawatina nag nga demoon ba mos ko gis lam la doon wàññi bañ ko fi dindee lam la jariñ ñooñu tamit xam nañ moom lan mooy yaakaar si Sëñ Tuubaa ji moom kon euh, daal ci gàttal euh, màggal gi looloo tax euh, sëriñ bi sëriñ Sidi Euh, togg ñi nga xam ne ñooy commission culturelle bii euh, digal leen taxawaay yi nga xam ne moom lañ ciy taxaw mooy fexe ba jariñ doomu aadama yi fexe ba jariñ nit ñi ci Sëñ Abdou ndax comme ni ma ko waxee woon sànq rek Sëñ Abdou Lahad man maa ngi jàpp ne képp koo xam ne kilifa nga xam kilifa ak diine wala kilifa ak aada euh, boo ko xamoon dana la jariñ lool nga fexe ba wut ab gëstu boo xam ni ci ñablaat lay doon bu yaatu nga man di ca tibbee léeg-léeg loolu yaakaar naa képp koo def da nga ci gis ay njariñ yu dul jeex ca doo ko rëcc kon euh, ci gàttal kon loolu mooy kàddu yi nga xam ni nañu dañ ko ci sànni euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad Mbacké Ali ci waxtaan wu am solo woowu nga xam ne euh, def nga ko te mooy xëccal nu nataalal nu sëriñ Abdoul Ahad ba mu gën a jege. ci wàllu jikkoo ak melo ak jàngale moo am solo moo xam ne feeñ na ci ak dundam te ku ci tabax sag dund sa dunduk àdduna mën a jëkk mën a jag sa dunduk ëllëg it mën a jag tabaarakallah ni ki noonu it sëriñ Abdul Ahad bu soo moom sëñ Cerno noonu la indee liggéeyub commission culturel bi ci anam yu wuute yoo xam ne lépp tabaarakallahu njariñ la kon bokk yi lii mooy jataay bi nga xam ne moom lañ doon waajalee màggal gi kon incha allahu alxames jii di ñëw la rek bisu tey bi bu dellusee war a tolloog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sowal di weeru korite waaye itam nag ren mu war a tolloog ñaari fan ci weeru mai le 2 mai incha allah bu ko defee incha allah ginnaaw suba ni ki gaawu tollook la 27 am na jataay bu am solo bu ñu war a def muy table ronde bi nga xam ne daan nañ ko def fii ci kër Sëñ Abdou Lahad ren nag ñu génne ko ci bitti ngir yaatal gi nga xam ne Serigne Sidi Mbacké bëgg na ko ci liggéey bi mu gën a yaatu te gën a dëppook jamono ñu jagleel ko kenn ci bokk yi muy sëriñ Amsatu Jaxate njabaruk sëriñ Amsatu lañ ko jagleel mu war a doon gaaw war a tàmbali incha allah ginnaaw bu ñu jullee takkusaan ba noppi di waxtaan wa am solo wuñ fa war a def foo xam ne sëriñ Seex Mbàkke ñang moo koy def ak sëriñ Fallu Buso moom sëriñ Xasan euh, incha allah it bu nu ca jóge am na yeneen jataay yu ñuy def doomi dongo yi terbiye yi nga xam ne ñoo jaaroon ci kër Sëñ Abdou Lahad ñoom itam am na jataay bu am solo am ngontum njàngum alxuraan ak xasida moo am solo mu ñuy def talaata ca biir kër Sëriñ Abdou Lahad waxtaan wu am solo wu fay am niki noonu it exposition bi nga xam ne waajal nañ leen ko moom itam buñ ne ginnaaw suba la màggal ci guddi ki talaata ci guddi lay tàmbali bu ëllëgee nag ci lañ koy ubbi ubbig yaatal ba bokk yëpp man ca tab bi muy àllarba bu ñu nee suba la màggal gi bu bisum màggal ga ak jàmm de alxames ji noonu ñu ko baaxoo defee rek xëyee koog njàngum alxuraan ak xasida ak berndeeg ziyaara bu ko defee nag bu bu ñu jullee timis ba noppi nag waxtu wi nga xam ne li ëpp ci bu njëkk dañ ci daan def lu mel ni cérémonie officielle loolu nag dañ ko dindi at yi di ko wuutale eh, jàngat discours Sëriñ Abdou Lahad waxtaan yu am solo yooye nga xam ne moom la daan waxtaane moom la ñu fa jëmmal ngir jàngat ko ànd koog bokki yi nga xam ne ñooy bokk yi yi taxawee na bi ak yeneen boroomi xam-xam yu ñu ciy invité sëriñ Mamour am di war koo def ren ndax waxtaanee sëñ Abdou Lahad ni ko sëñ Abdou Lahad Ali waxee léegi rek lam lamboo ci xam-xam ak xikma yaakaar naa buñ ko gënee jegeel nit ñi gën koo tas danañ yëg ne xam-xam piir la doon wax alxuraan la doon wax xadis la doon wax waaye itam njàngalem sëriñ bi la doon dëxëñ ci biir waxtaan yooyu mu doon wax ci làmmiñu wolof kon sëriñ Abdou li ñuy wax alphabétisation moo ci jiitoon ñu bare bari fexe ba jël xam-xam yàkkal ko nit ñi ci seen làmmiñu bopp loolu njàngalem yooyu nag at mu jot dañ ciy jël benn discours waxtaane ko kon daal bokk yi lii mooy jataay bi nga xam ne moom la ñu amaloon ngir waajale ko màggal gi ngir fàttaliku sëriñ Abdou Lahad te fàttaliku gi ak màggal gi kat ndeke lees ci def rek defees na ko ci roy sëriñ bi ndax xam ngeen ne ab murit moom warta def lenn ci lu dul ndigal warta def lenn it ci lu dul ni sëriñ bi jàngalee ne lii moo di aw yoonam sëriñ bi itam lépp lu muy def ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko teg ndeem nag bis bi bàyyi woon na ko xel te dara wër sëriñ bi du bàyyi xel dara lu dut loo xam ne dafa tege ci alxuraan ak sunna dafa tege it ci xam-xam ak luy jubal ay nit séent loolee mu doon séentu moo waraloon mu amoon ci sëriñ ab Lahad yaakaar ba fonkoon bis bi wax ca wax yu rëy ba àgg ci sax ne ku man aw turam da nga euh, mucc ci sawara tabaarakallaahu ba mag ña fekke woon loola kenn ku ci ne daan déglu morom mi muy def muy ma xaarij tur wi ngir xool ba xam ni mu koy waxee dëppoo na ak ni mu doone wala déet def cebernde yu am solo digg ca lam ca digle kon bu fekkoon ne euh, bu nu fekkee bis ba dañ caa war indi ak ndawtal mbaanu def ca dara dara ëpp ca solo nun la nuy ndawtale ca bis ba mooy alquran ak xasida ñaanal ko ca bu boobaa sëriñ Abdou Lahad dana ci bëgg sëriñ bi dana ci bëgg te sëriñ Abdou Lahad day ku am jom la koo xam ne lu ko waaye defal mu delloo la ko loolu képp ku ku koy dund ak ku ko mos da nga ci xam dara kon jàpp naa ne lu ci waay def moom nga ko defal sa bopp nga ko defal sëriñ bi it nga ko defal kon daal bokk yi yaakaari sëriñ Tuubaa jooju nga xam ne dëggu na te dëggal dëggalug yaakaar ji nun ñu dund ko fekk ko lu bari lu lu mënoon a lore ci dëkk bii nga xam ne sëriñ bi da ko fonkoon lool bëgg ko lool wax ci lam ci wax sëriñ Abdou Lahad taxaw ba taxaw temm ci mboolem baydu sëriñ bi wax ci Matlabul Fawzayni mu fexe ba mu jëmm ci dëkk bi loola jàpp naa ne jaroon na rek taxaw ci bisam jaroon na fàttaliku ko jaroon na itam dundal ko kon mbokk yi noo ngi yem ak yéen fii ñu waajal màggal gi bu baax di ñaan nu àgg ci ak jàmm di ñaanal Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdou mi nga xam ne mooy kilifa ak kuréel gi taxaw ci tem saa yu ne muy soññe di ci def alalaw alalam di ci taxaw bëgg lépp jàkk tabaarakallaahu lu mu ci liggéey ngir liggéeyal ko Serigne Abdou Lahad ngir liggéeyal ko Serigne Touba yàlla na ci dëppoo ngërëmam